yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunuy sidit yëngootina bu ñu jóg di way sang xam naa ne kàddu yi moom du bëri sëriñ bi nee na asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. di nuyu yëpp rek mbokk di nuyu mbokk jullit yëpp ak mbokk taalibe yëpp. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mountakha Bassir di ñaan yàgg di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassir di ko ñaanal mu yàgg fi loolu ànd ak ak Cheikh Abou Baraka xalifa Cheikh Mamadou Faare mu yàgg fi xalifa sëñ Fallou mu yàgg fi lool te mu ànd ak wér. ak sëñ Cheikh Amdi Fall yàlla fi yàgg lool te ànd ak wér. ak ak ak taalibe yëpp. sëriñ mi nee na ak taalibe yëpp. ak jullit yëpp rek. ak jullit yëpp rek. ak am jàmm. sëriñ mi nee na na ñëpp am jàmm. ñu ngi ñu ngi sant waa diwaanu galas bu baax. sëriñ bi nee na ñu ngi sant waa diwaanu galas bu baax. Ah, ndax ñoom li leen war rek ci lan la. ndax yéen li leen rek ci ngeen nekk. gën leen gën leen cee ne rek. gën leen cee nekk rek. nañ ci nekk. nañ ci nekk rek. bu ci nekkee. buñ ci nekkee. sëñ bi dana nu taxaw ci lépp. sëriñ bi dana nu taxaw ci lépp. comme sëñ bi moo daan wax naan nekk leen benn. ginnaaw sëriñ bi moo daan wax ni nekk leen benn. loo bëgg am ko. loo leen bëgg am ko. ñun ñu nekk benn li ñu bëgg ñu ñun ñi nga xam ne nekk nañu benn lépp lu ñu bëgg ñu ngi koy am. di ñaan sëñ bi gën koo yokk. di ñaan nag sëriñ bi gën koo yokk. te bu leen tontu kenn. sëriñ bi nee na bu leen tontu kenn. lu waaye wax. lépp lu waay wax. jikkoom la. tàmm na tàmm na ko nag. li ma leen wax ci bëccëg rek laay waxaat. li ma leen wax ci bëccëg laay waxaat. sëñ Afia dafa dafa dafa suñuy xol. sëñ Afia Mbàkke daa fees ci suñuy xol. ni ko ràpp tëj. ni ko ràpp tëj. ba leneen xaju ci. ba leneen na xaju ci. kon ñun. kon ñun. leneen mënut leneen mënut dugg suñu biir xol lu dul loolu. leneen mënut dugg suñu biir xol lu dul loolu. muy sëñ Afia. sëñ Afia rek. ñu fa yéene nag ànd liggéey bi. ñu fas yéene ànd liggéey bi. di ñaan suñu borom kattanal nu. di ñaan suñu borom kattanal nu. te musal ñu ci pakk-pakk. te musal ñu ci pakk-pakk. ba nu ànd liggéey bi ñu ñëpp ñu ñu sottal ko. ba nu ànd liggéey bi ba sottal ko. ndax sama ndam. ndax sama ndam. mooy seen ndam. mooy seen ndam. seen ndam. seen mooy sama ndam. Euh, Serigne Moussa dafa wax ni. na noonu màkka ya defoon njool màkka la ñu la noonu mbàkke yi la noonu mbàkke yi di def njool mbàkke loolu ku ko dégg nag loolu ku ko dégg nag xam la ko waral xam la ko waral waaye nanu xam ni nanu xam ni sëriñ Afiya gaynde la fi bàyyi sëriñ Afiya Mbàkke gaynde la fi bàyyi tey danoo fekkee démb tey danoo fekkee démb de te kenn duñ tax ñu wax ñu kenn nag duñu tax a wax xam nañu démb xam xam nañu démb xam nañu tey lépp ci kër gi lañu fekk lépp ci kër gi lañu fe sëñ bi na xamal nañu lu bari sëñ bi xamal na nañu lu bari waaye du tax ñu ŋaang mukk waaye du tax ñu ŋaang mukk déedéet déedéet kon ñu mel ni ñoom kon nag boobaa dañuy mel ni ñoom xam nga lu nu gëm mooy am ngërëmal sëñ bi. mooy am ngërëmal sëriñ bi. loolu la ñu bëgg. loolu la ñu bëgg. loolu la ñuy sàkku. loolu la ñuy te teg ko ci ndigal. te teg ko nag ci ndigal. ndax yoonu murit moom ndigal ndigal ndigal ko sos. ndax yoonu murit ndigal moo ko sos. ndax sëriñ Tuubaa kat ba muy ba muy dem di liggéeyal boromam. ndax sëriñ Tuubaa ba muy dem di liggéeyal boromam. daa am ndigal ci yonent bi. daa am ndigal ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ndigal lu jóge ci sunu borom. ndigal lu jóge ci borom. ba mu ba muy julli ca géej ga it. ba muy julli ca géej ga daa xam ni ndigalul suñu borom la. daa xam ni ndigalul suñu boroom la. kon nag moom mu mi téewoon ruuga. kon moom ma téewoon ruuga. yàlla na nu téel suñu ruux. yàlla na nu téel sunu ruux. ba li nu bëggee liggéeyal sëñ Afia. ba li bëgg a liggéeyal sëñ Afia. ñun ñëpp teg seen bët. ñëpp daal ciy teg seen bët. ñun foofu la nekk. ñun daal foofu lan nekk. leneen nag. leneen nag ñoruñu ñoruñu. ñi ma sëriñ Afia booleel. ñi ma sëriñ Afia booleel. damay ànd ak ñoom ba mu neex. damay ànd ñoom ba mu neex. dëgg la. ànd ak ñoom ba mu neex. te day gën a neex. te nag sëriñ nee day gën a neex. day gën a neex ba neex. day gën a neex borom mu neex dem te neexe xeex. ku sa ku muy ku muy metti sab xol. loola nag képp ku muy metti sab xol. na xool sa digg ak sëñ lu fa new na xool sa digganteeg sëñ Afia lu ca nekkoon. ñun de ñu ngi sant. ah sëriñ bi nee na ñun de ñu ngi sant. ndax lenn lañ seqoon ak sëñ bi. sëñ bi. mooy ñaq di ko jox. mooy ñaq di ko jox. ak di topp bànneexam. ak di topp bànneexam. loolu lañ seqoon ak loolu lañ seqoon ak sëñ Afia. leneen nag lu waay seqoon moom. leneen nag lu waay seqoon ak moom. ba tax sa xol di nux nuxi. ba tax sa xol di nux nuxi. waaw moom loola nag sa affaire la. ñun ñii nag. ñun ñii ay taalibe Sëriñ Afia safar terooti na ay sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang safar terooti na sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na bu ñu jóg di way sang